waaw li may njëkk a wax mooy discours u président de la république discours u président de la république sigil na Sénégal sigil na Afrique discours u président de la république ku ko dégg sa dana dem keroog ba Senghor taxawoon di wax ak Sénégal yi ni nguur kenn du ko ñéed discours u président de la république wone na ni nit ku gore nit ku xam teraanga bi ko Sénégal defal waaye it nit koo xam ni teraanga biñ ko defal sànni wu ci suuf wone na li nga xam ni jëlee na fa Sénégal yóbbu ko fa nga xam ni fa la ko yóbbu te li muy wax yépp kenn ku ci nekk boo waxalee yàlla di nga xam ni lu mu lu mu lu mu wax rek dana am sénégalais yu bari yoo xam ni ñu ngi ci mën nañ ci duut baaraam ndax ñu ngi koy dund wala ñu ngi koy jëfandikoo wala ñuy gis seeni nawle wala seeni mbokk di ko dund président de la république joxe na exemple pour Afrique bépp joxe na exemple pour bépp sénégalais wax leen ni que ni liggéey rek moo am solo joxe na exemple pour bépp sénégalais wax leen ni que ni gor day fàttaliku démb gor day xam teraanga biñ ko jox gorit du ñu tiye loxoom ci ñam ndax euh, bu ko neexoon tey li nga xam ni waroon na ko def muy présenté wu mënoon na nekk débat tey kenn ku ci nekk di ci lam-laame waaye ba nga xamee ni que ni jàmm rek pour réew mi moo ko tax a jóg ak naataange réew mi moo ñu ne mayal pression waaw loolu ku mu neex nga wax ko xam nga loolu amul solo li am solo tey mooy li nga xam ni moom la ñuy dund ndax ku wax ni pression nga da ngay rek amu ci kenn koo xam ni mës nga toog ak ku toog ak président de la république naan def naa ko pression man maa tax mu def lii wala man maa wax lii nañu bàyyi yooyu Sénégal nañu tàmm di rafet lu jëf ju baax bu nit jëfee jëf ju baax dañ ko war a wax jërëjëf rafetlu ko ba pare bàkk jëf jooju pour que suñuy nawle yi mën cee euh, sukkandiku pour ñoom it tegu ci yoon bu baax waaye lu ñëw rek faaw ñu seet loo xam ni dañ koy gàkkal bu ko sénégalais yi gàkkee la man fi may wax ak yéen maa ngi nii Burkina Faso ñi ma wër ñëpp ñëpp ay tàgg ñëpp a doon tàccu président Macky Sall waaye comme di wax tubaab rek on n'est jamais roi on n'est jamais naka lañ koy wax. prophète chez waaw on n'est jamais prophète chez soi nañu bàyyi yooyu te xool li fi Sénégal jëm. tey mën nañu sant yàlla nit day mën a dafa war di sant yàlla la in zakartum la azidan lakum dañu war di sant yàlla ndax lii tey nga xam ni tey président Macky Sall def na ko ndamu sénégalais yëpp te ku koy ku koy ngàññit Sénégal yaa nga yàkkamti ci génn bitim réew di xogali ko bu buñ la nee réewu Macky Sall la ngay ngay tiire say mbagg nañu bàyyi yooyu dama ni Macky Sall jërëjëf Macky Sall wone na ni que ni Sénégal ndekete yow ay goro nga fa Sénégal Macky Sall wane ne que ni li ñu daan wax ni mooy politique di naxantee di wax lu dul dëgg ak ndàngam ndàngam wane na ni que ni mën nga jiite réew avancé réew mi yóbbu nit ñi fu ñu nekkul woon ci wàllu jàmm ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu gouvernance ba ba noppi ànd def ko ci ci ci ci njub mais fii tey li sama yaram mi ngi daw bi ma koy seetaan dama ni ndekete yoo gor am na. te gor nag. gor nag gor rek a koy mën a sentir gor gor rek a koy mën a sentir première chance gor mooy mu séq ak ay gor waaye gor bu séq ak ñu dul gor nag mooy lii rek li sëñ Mansour doon wax rek naan bu ñu la defalee teraanga ngay guux ay lex naan dama ko yeeyoo. ñan ñoo dul gor ñan ñoo dul gor ah ñi nga xam ni naan dañ koo teg pression bëgg a gàkkal geste bii mu def loolu du yëfi gor. Hmm. gor dafa war a taxaw ni Macky Sall jëf lolu mooy yefi gor ndax nak won nañu que ni mom gor la. d'accord euh, Mayel bilan bi mu tiré ci emploi des jeunes xam nga ren li gëna a ci Sénégal bokku na ci euh, junni junni xalé yi nga xam ne ñoo dess ci géej ay xalé ki mag sax euh, ndax immigration clandestine bi euh, yak ñak yakar ci réew mi waral ñu bari dem quatre vingt emplois yi mu wax pour 450 milliards est ce que réellement mun nañu gëm ne lu nekk la wala dafa doyul pour peut être safara jafé jafé bobu di xeyu ndaw ñi. soxna Fatou. Hmm. yàlla moom la ñuy wax bi kulli kamalin wa baidun an kulli naqsin c'est-à-dire lu ko neex bu ko neexoon tey Sénégal tey kenn du kenn du kenn du liggéey bu ko neexoon sax kenn du lekk da nga yeewu daa di suur waaye yàlla defu ko daanu dajul suuf xam nga mooy principe bu kaas le le principe du verre à moitié plein bu fekk ku bëgg a gàkkal nag dangay xool rek la feesul waaye ku ku bëgg dëgg dëgg dëgg xam ndax ki Sall njariñ la woon pour Sénégal wala mais dangay xool ba mu fiy doog a ñëw wax na ko lu mu wax lu nekk dafa tëkkale ba mu fiy doog a ñëw fu réew mi tolloon ak fu réew mi toll tey xanaa kay ñu ni ma loolu mu wax amul bu boobaa ñu mën a wax mais yow gis nga ni que ni fi réew mi tolloon ak fi réew mi toll bi muy ñëw lu ci walu ndaw yi la ñu amone ñaari ben université ak genn walu parce que université garçon Berger man jamono yooyu maa ngi nekkoon Prytanée militaire c'était une université incomplète pas du point de vue des infrastructures que du point de vue de l'architecture des programmes du point de vue du corps enseignant du point de vue des de de de, de la vision des débouchés des étudiants nañu waxante deug fi lañu fekk ñun ñëpp ay sénégalais lañu kenn ku ne gis na ni que ni yow soxna Fatou xam nga ni que ni délestage yi na mu daan amee amatu ko ci nguuru Macky Sall man dem naa ci ay village yo xamni bañuy def campagne bañu démé ndox man ñu joxone pour teeroo ñu ay 2011 ndox moomu buñ ci fotone ce musor nga wër ko ba mu wow do ko jël teg ko sa bop té ñoñu tay ñi ngi am de l'eau potable waxna dans l'électrification rurale wa Kédougou wa wa Kaffrine mësuñu xalaat mëna def scanner seen dëkk dañ daan joggé ay kunda yu kenn xamul di ñëw Sénégal pour def scanner tay du point de vue euh, de certaines maladies spéciales ay burkinabé ay ay ivoirien ay nigérien ñoo juké sen réew ñëw di soigner wu ci hôpital dalal jam, mani bu ñu kenn dam xam nañu fu réew mi tolloon ak fu mu mm. maintenant pour l'emploi des jeunes mais c'est un problème mondial le un état n'a pas pour vocation de créer un emploi des emplois un état a pour vocation de créer un environnement favorable au secteur privé te bon xoolee li le secteur privé Mais nga son véritable problème c'est le financement du haut du bilan mais le bon avec le fonds JIP on n'avait plus de banque de développement le président de la République a mis en place euh, une banque de développement qui a accompagné le secteur privé avec les innombrables structures d'accompagnement du secteur privé maintenant ce n'est même pas un référentiel d'évaluation de la politique du président que de parler des jeunes qui vont en immigration j'ai mon propre cousin qui il y a deux jours m'a appelé pour que je l'aide, me disant qu'il détient 5 millions de francs pour aller au Nicaragua. Donc ce n'est même pas un référentiel. C'est un problème sociologique, c'est plutôt un problème psychologique, c'est un problème de mythe de l'étranger et non un problème de peur de, la situation qu'on vit. Comment pouvez-vous imaginer au Sénégal qu'un jeune détenant un, fonds, un fonds propre de 5 millions de francs s'engage dans une aventure lugubre, comment voulez-vous euh, dire que euh, cela est une conséquence d'une mauvaise politique de jeunesse Mais ce n'est pas vrai. C'est la responsabilité de tout le monde. Est-ce que nous les avons assez sensibilisés sur ce qui se passe à l'étranger C'est notre responsabilité, C'est nous, politiques. C'est la responsabilité des religieux. C'est la responsabilité de tout le monde que d'avoir encouragé cette, euh, euh, comment dirais, cette vision que les jeunes ont de l'étranger. C'est notre responsabilité. Mais vous savez très bien qu'avec 5 millions de francs, quelqu'un qui se met au travail au Sénégal, dans le cadre d'une activité privée, peut bien s'en sortir plutôt que de prendre la pirogue et d'aller risquer sa vie. D'accord bu élection présidentielle dina yu jaar mais bala ñuy jëm ci élection yooya indi déjà ay gak gak ñaawlu na populisme extrémisme ak des manipulations manipulation pendant ce temps ay candidats sax tere nañu ñu investir est-ce que loolu mun na dalal xel ci élection bi ñu jëm ak la wax président de la république mësul Téré, benn candidat ñu investir ko. c'est-à-dire que c'est une question de perception. vous savez. La loi sénégalaise n'interdit à personne de mener une activité dans, dans un lieu privé. Mais il faut bien contextualiser la chose. Parce que pour qu'on présente nous, nous, nous, nous, D'où Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. nous, candidat nous nous interdire nous investir Nous nous, nous, nous, Sénégal nous nous, nit Sénégal esprit le mais ñu ko moom dafa attirer attention parce que candidat yëpp investir nañ ko a un candidat investir nañ ko ñetti yoon candidat Ousmane Sonko ñu bëgg ko investir terrain Parcelles assez ñu tere ko ñu dem une Cité ñu tere leen ka naka la ñu mun a comprendre loolu ba pare ñu une élection yu l'air. dina am est-ce que loolu mënta tee xel de aussi vous savez euh, le cas de Amna na Beaucoup xam ni bëgguma parce que son cas est particulier lu tax ko son cas est particulier lu tax non bugguma tout tudd parce que je ne suis pas là en train d'intervenir. Beaucoup bugguma personnaliser ma intervention d'accord Et euh, ma ko tuddee je préfère tudd Cheikh Ahmed Tidiane tout tudd Serigne Mansour Sy tudd Sëñ Babacar Sy que du tudd Kenen. donc c'est ma vision on ne peut pas me la d'accord waaw li nga xam ni nga hmm. le Sénégal est un état de droit te gis nga ñu nekk opposition comme ñu nekk au pouvoir on a intérêt à ce que nous conforter cet état de droit là c'est moi que nous avons ñuy parlé sur le vivre ensemble waaw si nous avons toogee ba nga xam war nañu particulièrement mais je pense que vous m'avez appelé pour intervenir sur euh, le discours du président de la République le président de la République l'Imlène leen wax il fera en sorte est ce que est ce que lolu du yenn yé koy provoquer lolu mu ñaawlu mo ñu indi ci question bi ma la laaj Mayel est ce que du yenn yi ñu jàpp euh, peut être xagn nit ñi seen ak seen yelleef la moy hmm. indi après fip yenn yi mu tuddee peut être extrémisme. mais soxna Fatou. Hmm. amna ño xamni tay xalaatu ñu xalaatuñu ni dinañu jall parrainage ndax seen position par rapport euh, au gouvernement par rapport euh, comment dirais-je au pouvoir public tay lan lan ci wax mais dañu Sénégal daal mooy bala ñoo yëkkati kaddu rek faaw ñu seet loo xam ni mën nañ ci sukkandiku pour gàkkal mais quelqu'un comme Boubacar Camara pour ne pas le nommer mësul xalaat jàll parrainage Dédé Fall mësul xalaat jàll parrainage ak ñeneen ak ñeneen mais nañ leen saluer loolu avançons avançons sur la beauté de ce qui nous unit Essayons maintenant de régler les problèmes qu'on peut régler entre nous, mais nous faisons la promotion de ce qui est bien. jërëjëf Mayel. jërëjëf Fatou. Mangi Lendi, Mangi di maa ngi wax sa sa euh, depuis le Burkina Faso yëm Mangi maa wax bonne et heureuse année yal na yàlla sàmm Sénégal yal ñu dem ci élection yo xamni. ni tambali ci bisimilah rahmaani rahim Agale. alhamdulilah rabil alamin yal na yàlla teg ci bopp Sénégal ki nga xam ni moo gën ci moom gën ci Sénégal gën ci Afrique bépp ci barke yonent bi. amiin jërëjëf jërëjëf Mayel Thiam. jërëjëf.